waaw waaw. nga ne. mu yéen. nga ne. ah. ah. nga ne. ah. ah. ah. ah. mu yéen. jërëjëf. <laughs> dama ne. dama ne. xam nga ngay liggéey ba sa président nala la macha allah kon yow doo mën a sa jaan wàcc na ci macha allah. boo nekkee ci classe d'examen jël tableau d'honneur ñu bind la ca kaw. c'est parce que yow honoré nga tableau ba ca boppam. dama ne topp ci ginnaaw président te président yëgul na yaa ngi topp ci ginnaawam loolu mooy pertement. te dama ne mobilisation bi nga xam ne def naa ko. ba président tek ci bëtam gërëm ah macha allah damay delloo gërëm googu gërëm ko ñi nga xam ne fu ma leen yee ñu daanee jóg ànd man. bi ñëpp ne mënul nekk maa ne mën na nekk. bi ñëpp ne mënul nekk maa ne mën na nekk. bi ñëpp ne kenn du génn maa ne ñëpp dinañ génn. biñ ne fii fees maa ne maa koy feesal. biñ ne eh, kenn. ñëpp dina ñëw. ma ñëw xam nga man lépp lu ma tardal ci àddina mooy la président Macky Sall fexe ba li nga xam ne moom la bëgg mu teg ci loxoom dama koy guddeel di ko bëccëgal waaye nag fay na ma guddi fay na ma bëccëg. ndax kale bu ndaw ñu yóbbu la ca au conseil territorial jox la président commission santé mais mandataire APR ci xale bu ndaw dama ne li ma liggéeyal président Macky Sall mu delloo ma ko dama koy jël boo samay mbokk ndax lu ne boo ma doon natt tey ci rabu àll yi jàppal na gaynde laay doon boo xam ne lu ma fàdd président Macky Sall ko ma ne joxewu ma paas joxewu ma xaalis dëgg laay wax ak conviction ak ne leen xëppi leen seen bët xool le président Macky Sall li muy liggéey dama ne ñun waa Mbàkke ak ñun waa Touba xaw ma ku war a sewal président waaye ñun war waruñ cee bokk ndax lu président am ñamal nañu ci lu mu safoo ak lu mu safadi ak lu mu ñàkk bañ a xam ñun fexeel na ba xamal ñu ci li nga xam ne ñun am nañ ko tey pour mën a cee ndikkandiku ne président Macky ngi liggéeyal ma ne président fu mu soxlaa mbooloo ci Sénégal danaa ko yóbbu ndax moo ma ko ji moo ma ko wan moo ma ji taranga te taranga boobu lekkuma ko rek man kese bàyyi samay mbokk fu ma gestu samay mbokk ngi may topp ndax fa ma leen di jëmee gis nañ fa la ma leen di wax du ay waxu wala puuna la may wax dafa nekk looy teg seen bët président Macky sàll lu mu wax dëgg la te dama xam ne ñun waa Mbàkke dañu war a sant yàlla mhm. parce que xale bu toll ne man ñu dénk ma ay responsabilité président paregul de paregul ci man de te bu parewul ci man du ma pare ci yéen ndax mu yéen laa fi ma ne man Macky ma jaral jarul ko kenn jooy naa guddi ndax Macky jooy naa bëccëg ndax Macky ndax damay werante président Macky Sall bu ne lii ma lii la ñu ne du lii ma lii la ba loolu yàlla mu ji bu nekk loolu ndax man président Macky money. topp leen sama ginnaaw rek fu ma leen woo ngeen ñëw lu ma leen sant ngeen ko def li président Macky wax ñu def ko maa leen di géñal na ëllëg bu leen dara bett ngeen xëye suba teel ñu ne le nouveau ministre de Mbacké ñu ne kan ñu ne Matar Diop ministre de Mbacké qui entre dans le pale de de de Mbacké ñu ne fu mu jëm ñu ne Mbacké la juge fuñ ko fale ñu ne Dakar nañ ko fale